salaamaaleykum chers internautes de Dakar Buzz ñu ngi leen di wax ngeen dal jàmm ci seen émission sama couple sama couple mu émission boo xam ne nii dafay dugg ci rukkurukaat yi xool ñi nga xam ne nii ñoo bëggante te ñu ñu koy fësal muy nit ñi nga xam ne nii que tu sois riche ou pauvre ñu mettre leen en place nga njool wala nga gàtt en tout cas c'est une émission boo xam ne c'est ouvert à tout le monde Bonsoir mon ami, mon frère Kebs. Fatima, comment tu vas Ça va, je vais bien. Tu vas bien, c'est sûr ah ça se voit que là je vais bien. mais lii narul yomb naa. ah non non non non bu naree yomb dañ koy bàyyi. képp koo xam ne da ngaa bëggante sentir ni yow ki nga bëgg bëgg na la ñoo ngi lay invité ci émission bi di la wax ne émission bi c'est open à tout le monde. à tout le monde j'ai un complexe. ku bëgg a participer bi émission bi di nga am numéro bi en bas de l'écran. en plus de cela. Mm-hmm. ku bëgg seetaanaat émission bi on a des pages sur YouTube. Mm-hmm. Instagram Facebook. Maintenant, c'est accessible à tout le monde. En tout cas, je dis une chose. Si vous êtes à la requête d'une vraie histoire d'une couple, ne zappez surtout pas. C'est Dakar Buzz.